mbokk yi fi ñu jëm nii mooy taaxu Muhammadu Rasulullahi al Mahdiyu Abdullahi al Yaqin fii la newoon ci ay jamonoom daan fii weetal sunu borom taax mii ci ay jamonoom li ko liggéeyoon fii nag sunuy maam saaba yi ñoo ko daan liggéey jigéen ñi ñoo daan xëy mool téeméeri mool doog a dem ca waañ wa mu tabaxoon ko fii kilifa gu nekk ci yoonu Mbàkke ak Faal fekk nga ko fii ci biir taax mi ñu nekk fii la ko sëriñ Faal bu fekkoon ci ginnaaw ci si gii ngeen di seen nii tabale yii nag ay jamono ku dégg nodd ci Cees kii moo la jox nodd kii mooy imaan liimaan lexsaan moo ko liggéeyoon ci ay jamonoom la woon moom lañ daan nodde boo jëlee tëgg da daan dem di raisonner lu sori ci ay jamonoom ñett ñetti yi daan tëgg ci leen daan nodde ba jamono jiñ toll ñu ngi koy ñu ngi koy tëgg suñu bàyyi Saliou moo koy tëgg di ko yëkkati ndax bu xësee raisonné foo musaana nekk ci Thiès ak li ko wër kii di moo lay xamal ni waxtu julli wi jot na ci ay jamonoom la woon nii nii fii fii nii ñetti tabal yooyu la defoon muy iman liimaan lixsaan la ko tudde woon duppi woon lal bii ñu lal bii ngeen di seen téere yu tedd yi buy lay yi nga xamante ne moom la daan yore ak njabootu saaba saaba yi ci leen ko daan teg ndax moom doon woon koo xamante ni kuy jëfandikoo ay lal ak yooyu la waaye bi tawat ji dikkee waraloon màggal gi jàll weesu ci lal bi leen ko tëraloon ci tawatam ju metti jooju noonu ji nga xamante ne nii bi moo waraloon màggal gi jàll ci lal bii leen ko wàccee woon dem jébbal ko sunu borom fee mu nekk fee mu nekk tey foofu la lal bi nekkoon mu daan jël ay xasida ak ay téere alxuraan daan ko teg ci kaw bi incha allah dogalee tawat ji nag wàcc ci kawam nag ci lal bii la ko fekkoon moo waral màggal gi nga xamante ne moom lañ romb barki démb fii la fii la newoon ak njabootam fii la nekk nag fii nag euh, taawam bu tedd ba soxna Maguette Bintu Aydara mi nga xamante ni nii moom leeru àjjana la moom moo newoon fii ci kër gi nii fii nu jëm nii nag ab julikaayam la woon ak fi nga xamante ne nii mooy si démb bi nga xamante ni daan na fi toog sëriñ Fall daan fekk na ko fi ak njaboot gi Serigne Balla Fall Dieng ak sëriñ Cheikh Coro Mbacke ñoom ñu ku ne fekk na ko fii nii fii fii fii mu nekk. fii nii ab jullikaay la ab jullikaayam la woon moo fi daan julli daan fi wéetal sunu borom ku ne toog na fi fii nii kilifa gu ne ñëw na fekk ko fii nii ci jullikaay bii nii fii ñu nekk nii si dem gii ngeen di seen nii ay jamonoom la woon ba tey ay téeméeri téeméeri at la si gi am mi ngi fi ba tey fii la ko sëriñ Fàllu fekkoon mu toog fii ci si gi gii mu raam foq baxanaam foqi dàllam sukku si suuf mu ko ana sëriñ Fàllu yow lii nga def nii loo ci jublu mu ko lii ma def war na ku yàlla bind ndax yow yaay rasulullahi mu ne ko di nga toog ba jamono dikk nga gàddu ko nii sa jamono sëriñ Fàllu koo fi gis nag moo la gën a neex ak ay ndax fii la ko fekkoon mu toog ci suuf suufu si déem gii nii ñu ñaan yàlla ñun ñëpp taas nu si barkeem ci si déem si déem gu tegg la njabootam gépp nag ñi ñi ñu ngi fi ah, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi doon ànd ak leeral point net ak leeral tv doolu leen ñëw doolu leen wan lan mooy kër sëriñ Abdoulaye Yakhine lépp xaju fi waaye ay jamono ngi ñëw ci kawam dina am leen lu leen wan asalaamaaleykum wa rahmatullah